te di ko partage hankiiɗan ha sumrataho kaya, to kaltikaya sanadu yallaw sawayto nasihan telan yukarrimo ahlu samawatiya samadu yallaw taharto sabiyan mustakmilan surafa yahlo qalaiqaya samadu lau, babakar sawaji bene wajhal basirati lemi rasulallahi فاروق نين واجعل بصيرتي يا رحمن أبصرة أفضل خلقك يا سمر الله حتى أساعد يا رحمن تلهته baat bi saara atiya ah. sama yallaaw muntaha sama neene hatta usahida ya rahmanu talhato iflini maan bi saara atiya ah. sama yallaaw muntaha sama neene aw jatta qalqaka khadiran turidum bi qudratil qudsiya qadir yallaaw nafatkum hukumaka qadiran wa muqtadiran bil mulki wal man qadir ah. قادر يا الله بارخنين وأنت توجد أسياء وتهلمها بقدرة ربي لك يا قادر يا الله وهي حقا بساعات حق قائمة توجد أسياء يا قادر يا الله أمسيت حكمك في تمرين صحة من مسار وسر تقسيم جودك يا قادر يا الله لو كنا نيني رسول الله صلى مرجنا هي يا قادر رحية مدى دهورك يا قادر يا الله سره من كرم بحرا ميتا بدين الحق والحكم له الكمالات الخيبات منفردا بملك والمجد والبقاء والقدم فاروق نين رسول الله ينخصت عمدا مختار متربة قبل صفا والوفاء والحب والقدم خالصة للمليك الحق مرسلي فائدة من أصحابي لمقترب منتقى سماء من سميت لخلوع مكنون في سلف من نسم أسماء ابن طائر العالمين يسلني رسول الله حقيقة المصطفى هادي محمدنا نور بديع من الله بلا دمين من ساءه من على فردا بلا كفو عبدا حبيبا لوالي ما دارا سبير تب والانبياء كرام قادة الامم فارخني يريده روح ولم لكم كرمة وقلب والاولياء عندهم سلم تفلني اخرج الله رسول الله اخرج الله يمشي على قدمي فارخني رسول الله احلم من كان ساجر من وساهرة بلا خالق في الفضل والكرم قد سبق الحب من ربي لصفوتي وسبق الحمد من حبل لسنهم تحمد أمم أولى وأمة ولحدنا وقبل خير مزدان فرحنا له سيادة وسادات كلهم تحت مراتبها فرنسا بالاسم صلى المجيد بتسليم بلا عدد عليه والله والأسواج والبوان فرحنا وكل من جدا وكل من جدا للمولود يعصمه ففوزه بالنبي خير منكتم لو كنا نير رسولنا ميهور هي سان ومريم واسية من حوادر وقت مولد العالمين تفلني رسول الله فحقق الحق الحق والحق حق ولا حق بحق يهي كاقي هو صادق المصدوق لا حق مثله هو القاتم المختار من رسل ربي هو سابع المرجو من بين يدي هو سابق الأخيار بأمري هو الكامل المختال من بين رسلي هو الممطر أنواري من غير سري من الله ستوليل عزيز لقلبي هو ماجد الباني وصول مجادة من الدين والإسلام وهال المدين هو هامل المذكور قبل بريد برية هو ساكر محمود في يوم بعثي هو الفضيل المفدال لم يأتي مثله ولا مثل يعقوب وعن لفيدي أهلني رسول الله وكل من جد جد وكل من جد مولومي وكل من جد للمولود يحسم قل كيف فوز بالنبي خير منكتب رسول الله mune awal man kana makhluqan wa samadin habibukal babiya diyu yalla wa awrakal qalbu min asjari tilqatihi abna nu'a uslu ya diyu yalla tawaladal qalbu min gudin wa sirasadin ayu bariyati ya diyu yalla subhan rabbika rabbil hisati amma yasifuna wa salamun ala mursalin والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سور أنفسنا ومن سيئات أحمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد بن عبد الله والآمنة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ومن تبعهم إلى آخر الشمال ومن تبعهم بإحسان إلى آخر الشمال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي جلدي بوكي طالبي بوكي دكدوري غناو بنيو سنتاتي جبار سبحانه وتعالى نيجي نيو نيب شاري نيب di ndokkeel ñëpp waaye di jégalu yéen ñëpp si lii nga xamante ni tabarakallahu ñoo ko organisé daal di leen si woo gannaaw ba ñu jàngee gannaaw ba ñu defee salaatu googu ak salaam si rasulullahi sallallahu ñu ngi jiital si nuyoo bi si ñi nga xamante ni ñu ngi bàyyeekoo si xaddara bu tedd bu màgg ba di Mawlaaye Cheikh Sila Jomar ñii nga xam ne. tabarakallahu kane sabab ba muy seydi alhaaji mahamadul muntaxa moom mi nga xamante ni moom la yàlla teg ci bopp bi ak rakkam seydi mahamadul mujtaba ñoom ñooñalee ñu ngi jël suñuy nayoo di leen ko jox tabarakallahu ngeen séddaleel ñu ko ñëpp fu ngeen àndal si loolu le kon tabarakallahu ñu leen di jox nayoo bi waaye itam di leen joxaale nayoo bi ngeen yóbbul ñu ko si sàng bu tedd ba di ñaan yàlla lool mu yàggal ko fi te yàggee ko fi ak wér ak jàmm ñu ñëpp ñu mën a fekkee te jëriñaati bi jaay taha sallallahu alayhi wasallam bu ko defee xam naa ñu tënk ko ndax temps xaw nay xat lool gannaaw ba ñu nuyu ñooñu ba noppi rek dañuy lu ñuy wax nuyu xam si mbooleem jaamu yàlla yi boo xamante ni teew ngeen si barab bi ku mu si rek wàcce ne wàccu waayam buñ demee ba jox sëriñ bi incha allah dana gën a fasale dana gën a fasale loolu incha allah kon bu ko defee ñu dugg si programme rek ci nañ koy doxalee incha allahu rabbi gannaaw bu ñu paree si loolu danañu joxo sang bi i Seydina Ababacar tabarakallahu mu jël kaddu daal di dalal ay ganam tabarakallah ko jébbal ki nga xamante ni wala ñi nga xamante ni ñoom leen tuddee bis bi muy daairatu ahlul xayri bu Mulakar Njaga ñooñu itam buñ paree si loolu am nañ ci kàddu buñ paree si loolu itam dañ jël itam si kàddu gi daal di ko jébbal daairatu Nujabaa bu segre seko incha allah bu ñu paree dañ jël kenn si daairatu Bay Balla Dramé dëkk fële daaru Kër Balla am na si kàddu incha allah bu ñu si noppee itam dañ wëlbati ko dem si Seydi Abdullah Makka Faas di xaadim si kër gi tabarakallahu moom it am na si kaddu nii daal lañ faski yéene daal di ko tëralee kenn ku nekk nag bu ñu ko joxe na ko gàttal ndax temps bi xaju na lool incha allah ndax tabarakallahu waxtu yi dafa xoj lool te jëmm yi wéré di lool da muraay di bëri kon bu ko kenn ku nekk rek nu mu gën a a gàttalee rek incha allah na ko gàttalee si kàttanu yàlla kon bu ko defee ñu daal di jox si mbooloo mi sunu sëriñ sunu wasila Cheikh Aboubacar Dramé ne ginnaaw bu mu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi wa sallam sant goo xam ne borom bi moo ko jagoo mu di ko ko sant mu ne ñun mu niñ koy sant xaqal mahamidi waaye comme moom jabaar sant na boppam xaqal mahamidi ñu jox ko sant googu di sàkku ci moom mu julil ñu ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ak i sahabaam ak i waa këram gannaaw lool ba pare ñun nuyu ñu fi teew góor ak jigéen mag ak ndaw ñi fi dagan ñun nuyu leen dalal leen ñi fi da dëkk ñun nuyu leen jaajëfal leen su ko defee lim wax li Seydi wax moo ci xam solo gàmmoo lañ woote gàmmookat yi toog indi seeni ndabi leer war koy sot mu jëm ci Moustapha sallallahu alayhi wa mu jëmit ci jabaar subhanahu wa lii jëm ci jabaar subhanahu wa lii jëm ci Maulana Cheikh Seydou Laaj Omar Ndaw radiyallahu taala anhu yenn yi war a doon dénkaani ñeel ñu yooye lañ war a yàkkamti waaye la mënta ñàkk fay xam lii ñuy def ci la bokk ne Serigne Mouhamadul Muntaxa mu lay nuyu ñi nga wanay yow sëriñam nga sëriñ Muhammadul Mujtaba sëriñam nga mu batiku, def la xarit def la soppe ne mu lay xaasal nuyoo yéen ak ñi ngeen handal di len siyaara siyaara tëbbu ci guddi gi nga xam ne màggaluñ fi kenn kenn ku ki màgg te yàlla màggal ko ci mboolem mbindam mi muy Moustapha sallallahu alayhi wa kon bis bi dafa màgg kon loolu moo da bis bi su defee buñ xootee nit ñi xuy si ñi nit ñi war nañ fay jëlee lu tax ñu da xemem dafi del te lii tax ñii xemem dafi del dañ fay gis yàlla gis fi yonent bi sallallahu alayhi ñu ko mën a gis ci saayir ñu gis ko ñu ko mën a gis ci baatin ñu gis ko loolu la soo amee xemam teefi fa yokk te yaakaar nañ ne it wala gëm nañ wala gëm nañ ne bañ ko tàmbalee ba léegi loolu moo fee kon sëriñ bi lañ daan xaar da nam namaat nañ ko jàppoon dat xaj si nañ ci loolu jaroon na sant borom bi bis bi nag dañ koo tuddee ñoo xam ne ba mbir mii ñu da ko sos bis ba njëkk ba ñu lal ko ci xët xasamaan si da seb sebal ñu yoppooral lool keroog ñoo ñoom la ba ren da juróom-ñeenti at mosuñ koy wuute ñooñu kuy joxe cër ci sa bis te joxoo leen xeñ nga leen liñ moom kon ñooñu le ñoo moom bis bi muy daayira axlul xayri bu mu la kër njaga ba dara fa dara nekk doon foofa la ñëwee woon xaaruñ ba nit ñi da leen jéggi da dikk mënatuñee ñàkk dikk ñu da dikk ñoom ba dikk da jafe da xeebu da ñàkk solo ca leen dikkee kon ñooñu leen ñoo moom muy daayira ahlul xayri bu mu la ñu ñëw ñëw ba xam solo ñëw ba ànd ak yar ànd ak tegiin ànd ak dal def seen boppu taalibe indi ay hadaya yo xam solo joxe ko lolé rek doy gamo kon ñu ngi leen di dalal daayira awlul xayri bu mu la di dalal dekk yeb ndax dekk yi fi ñew bari nañ faasal fi daaru karbala balla morawa caaxa séeri kër Morje Njambur Sernala Sulimi Jum kër Babu Korja Maka Fas kër Babu Korja kër Halim Maram kër Modou Fatou kër Mara Masala dëkk yi daal limu nañ nit ñi daal ñëw nañ mu ne yéen ñim limut xam na leen xol bi lim na bi fasu waye yeg nañ len ñu ngi len di gërëmee di len bëggé ba baaxa a baax su ko défé kaddu yi buñu jébalé ñu mom bis bi ñu jox serigne abdoulay ak Bay Balla daayira ñu jabaaw ababul Faro ñu gattal lool ñu jox serigne bi mu defal ñi liñ bëgg buñ demee ba sa te ba insha allahu lañ war a wax ñun ci suñ côté ñu wax ko sëriñ bi lam ñu war a wax mu wax ñu ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu